defal woon boppam waaye fii suñ saalu la ko yàlla jagleeloo. moo tax bu mu ñëwee doogaa principal toog def liggéey bi ba ma ma àgg si mu àgg si. te la koy firnde mooy sëriñ bi bi muy làkku ñaata at la am suñ mag bi juróom ñaar fukki at ak juróom loola am na mu jàpp ndax suñ tubaab لكل عبد من القرآن سورته وسورة من كتاب الله تنزيله mais ñeel na bépp jàmm ci téere yàlla bi sa suura mu ne man Sëñ Tuubaa sama suura ci téere yàlla bi mooy suuratu Tanziil suuratu Tanziil nag juróom-ñaar fukki aay la ak juróom moo tax sëñ bi juróom-ñaar fukki ak ak juróom la fi def su ñu bokkaale loolu la fi def su ñu waxat loolu la fi def soxna May loolu la fi def Mamour Diarra loolu la fi def ñi ñi ñi takkoog sëriñ bi ñëpp ñu ci bare Cheikh Ibrahima Fall loolu ñu def hmm. ñi jege woon sëriñ bi ñu ci bare ñi am jër ci sëriñ bi ñu ci bare juróom-ñaar ci gàttal juróom lañu dund waaye di lay wax ni sëriñ Tuubaa moo dellu si waat nag sëriñ Saliou nag bi mu amee juróom-ñaar fukk juróom ci la toog doom sëriñ Tuubaa moom oh! xam ne kon sa demoon a dellu ngir yeggale liggéey bii nga xam ne bàyyi woon na ko fi ñëw yeggale ko ba àgg ci 92 mooy Mouhamad bi ci 92 la liggéey boobu Fatick loolu daay doy ci firndeel li ñu wax ni kër tàmbali woon liggéey bi boo ñëw yàggale ci ko tudd Serigne Sall loolu nag wane na ni conseil commencé sant ngeen koy sant daf ngeen lu lu lu yàlla lu ma am ci tuuti rek lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma ci fàkkeloo jël mm-hmm. fi jël fi mu mel na kon sëriñ bi tur rek dafa doy bi mu gënee àdduna 1915 ci di sëriñ bi sëñ Amadou Lamine Diop Dagana la yoroon daal di bind ci suuf Saliha Saliha la sëriñ Tuuba waaye yow doon wax léegi sëriñ bi li ma doon wax léegi ni moo ñëw yeggalewaat liggéey bi ca bi muy xasida bi ba muy nooru dara yi sëriñ bi di wax ki war mu doon liggéey bu ko liggéeyee ko ñaan te defe ko defin boo xam mu def nag ci saa yëpp ngay gis lu bare la yaakaar naa ni jamono tey ñoom liggéey mu def ay œuvre yoo xam ne jëmee na lool waxuma wàllu jumaa ji waxuma euh, Touba ni mu koy yàqal yi lampe yi teg yi euh, kër ñoom fa def ak kër suñu Touba yi naaf ci yeeg juróom ñax hôpital ma dina foofu day euh, ak marché ba marché ba mm-hmm. daara yi liggéeyu daara yi moom di gënal liggéey moom mm-hmm. dégg nga ak yeneen liggéey yi mu def ci këru diine yi def ko ci yooyu def ko ci adduna bi ba ci ndànkalee

te loolu sax xam naa ni da nga ko sous-estimé waaye war na ko ëpp ko ndax lay firndeel ni war na ëpp loolu mooy suñu cheikh mii mu sëñ Saliou bi mu toogee doon sëñ Saliou dafa am di muy waxtaan ci daara yi muy ma man de dama xayma li dem ci ceeb dawlu yu suukar ak café ceeb ñetti weer yu nekk mun na cent seize millions millions loolu liggéeyu daara yi rek daa doyoon sëpp ci doomu yi def ci ñoom jikko ju rafet def ci ñoom fulla def ci ñoom fayda def ci ñoom xam sa bopp def ci ñoom mën sa bopp def ci ñoom nite na xaw war a jaar boobu mu daan wax naan foofu la war a nekk te naan diggante moom tey bu jotaayoo moom tuuti na ci moom def na ci moom bay na ragal yàlla mooy ragal yàlla ragalaale lépp lu yàlla bind jox ñëpp orma jox ñëpp ak yëg waaye nag am ful la ba kenn du la fëkk am ful la ba dara du la yëngati ba gën a yàlla du la yëngati moo ne sëriñ bi daf ko daan nàmpatal doom muy koo xam ni dimension booy xool ci yoon muy ci mag ñi àndoon sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima sëñ bi fa jël sëñ Maodo Faye ak Thierno. ak Cheikh Anta. ñooñu ñëpp man ñooñu koo ci xool maam moo jaaral ma Thierno koo ci xool ma Massamba koo ci xool dimension ba nekkoon ci moom lépp daa daje ci suñu sëñ Fallou Mbacké bi ñu toll. ndax soo ko xoolee ci mbay ci mbay baan bu mat ko sëkk nga xool ko ci liggéey joxe bu mat ko sëkk nga xool ko ci sunna bu mat ko sëkk nga xool ko ci jubal sëriñ bi bu mat ko sëkk. kon dimension yooyu nga xam ne moo doon jeexital cëpp li Sëñ Tuubaa àndoon lépp daa daje ci moom. muy mbubb yoo xam ni Sëñ Tuubaa ba mu ko summee kodol ko ña mu àndaloon Sëñ Saaliw bi moo solaat mbubb yëpp moom xeet ci jëmmi boppam. yi daal mbubb yëpp daje ci moom. waaw. kenn xamul lu mu doon. muy koo xam ne itam moo doon. xam ni li ñuy wax aqiqa ak sharia lépp daa dajale ci moom muy jëf ci aqiqa di jëf ci sharia waaw ku ne gis na seen taalibu aw doxinam ndax soo ko nattee ci ak sharia ànd ak moom ci sharia mu fekk xel ndax la sëñ Tuubaa daan def te xam ni su dee julli awal waxtu rek la daan julli dañ caa di ool wax rek daal di natt asaka mu koor jàng alxuraan yare loolu loolu daf ci feesoon kenn waaye aqiba yi asaka yi daf ci feesoon kenn ndax gis ngeen ni suñ bee ci muy doy na ci tegtal doy na ci tegtal muy koo xam ne nag nii mu mujjee ci doomi seen tubaab yi dafa koy tënk ci wane ak yoon ndax lépp loo xam ni euh, melo la boo xam ni melawu doomi Sëñ Tuubaa moom melawu yeneen ci bi salaata moom la jëloon ba xajul ci benn jëm bi mu tasaare ci ci njabootam waaye day Sëñ Saliou de na moom kenn ku ne ba taataan melaw woowu ba melaw woowu rogaat rogaatal ci moom te sëñ mënul soo teg sëñ Moussa seetlu ku ne ànd naag yow ba la nga yoroon nga jot nga jox ko mu mu mu leen di jox benn par benn ba njaboot bi yëpp la tëj loola warul jaaxal kenn ndax yéen ci saa saa moo gën yëpp waaye moo fi jiitu. Mm-hmm. te ñu jiitu woon yëpp moo leen jàppaloon ci moom moom lañ doon wane waaye ba mu ñëwee loo doon seet ci Isa ak Moussa ak lu baax ni mm-hmm. soo ko seetee ci yéen ci saa saa sëñ Saliou it ñu doon seet sëñ Mansour Sy di ko seet sëñ Fallou di ko wut ci sëñ sëñ sëñ sëñ Bassirou lépp daa dajewoon ci muy koo xam ne liñ ko seereel na lool waaye seere yi mën nañ seen bi ci boppam moo waxoon ni Saalihu nii sama doom la sëñ Tuubaa ci boppam moo wax loolu wax jooju nag doomi sëñ Tuubaa yi dana amul dégg. ndax dañ moom Moussa moom ba mu ko déggee moom la mu daal di def mooy taataan ci moom sama doom jooju ko Sëñ Tuubaa wax ni ko dama bëgg rek nga dama ñoo bokk ba ñoo bokk way jur ñoo bokk bàyyi waaw nga ne na ci sëriñ bi ab diir ba sama sama sax jaxate ni ko wax ko moom Moussa dafa jox këru nguur gi ak dongay nguur yi sëñ ne mooy borom moom doon borom nguur waaye nguur dañ ma mos a mokk rafetal mm. te lii la ko jëndee mu ne ko ñoo ko ko bàyyi comme na wax ja te xam na ni suñ tuwaa lu mu wax day tar te am te fa muy jugee du fi nit ñi di waxee nii te loolu firiku na firiku na ci gannaaw ndax la mu doon def suñ taal yu mu mujj yeggale yëpp liggéey bi nga xam ne moom la suñ tuwaa wax sama doom yooyu mu doon wax lu wér a wér a suñ Murtala moom suñ Murtala dafa waxoon ni su jugee ci kaw suuf dafa noonu suñ taal bi su jugee ci kaw suuf gërëmal yàlla jeex ci suuf Cheikh Murtala loolu la tere woon suñ taal bi su jugee ci kaw suuf gërëmal yàlla jeex ci kaw suuf nit ñi suñ faalu gunge ko ba muy dem suñ faalu suñ faalu taxaw di ko xool ba mu yàgg mu ne xam ngeen jëmm jee li muy li muy doon la li muy ko déedéet mu ne jëmm ji di am kuuf la daal ñu xam ngeen luy am kuuf la ñu ne ko déedéet ñu ne ko mooy jàmbaar joo xam ni gànnaay yi mu yor mën naa tasaare adduna waaye doo gis lu fokk ci moom. loolu la ko dañ toll teeral daan na wax nii moom mii mooy ubbi lamb ji dañ toll am na bis mu jël ay ay ay tund yónnee ko woo sëñ Modou Badara Diop ñu ko sëñ taw muy de suñ ko toppee nga xam lu mu am jox ñu te duggul dara suñ ko toppee suñ dalee suñ suñ tubaab ëllëg daan baanam gàtt daal di jël ab dund daal di ko koy jox ñu ko demal nga yëgal mag ko ñu ko waaye nag ko joxee ñi ko mag ko jox soo kii nekkoon nee na ndigal mu yóbbu dund yëpp ba mu ko yóbboo yow ni que si si si ñëpp de moo la joxoon dund bi si saal waaye nee na nee na ndigal la de sëñ bi daal di daal di daal di xam ne kon pexe amatul daal ni comme nan ko yóbbu ci magasin yóbbu ko foofu waaye mbay ka fa ba mu yàgg mu wut ay nag di leen ko dundale di leen ko dundale di leen ko dundale ba nag ya toll noo xam ne yéene gis mu xëy rek ñu nan dàq nag yi yëkk sëñ bi daal di kii xam nga kii kenn mënu ko jaar sax. laa ilaaha illallaah. bu ko nit ki jaar. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. muy fii daan joxe lu bari te loolu tàmbali ko na màggal ci sa wax na ni xaar liñ ci jëkk joxe moo ko jëkk ci. ak ci yoon daa de. yu yónnee ak addiya ko xaw a dem ba mu demee xawul sax mënul nuyoo. ba mu yàgg si ñëpp laa ne am na ndaw si saa ah, na ak si ba kooku ñëwee mu jox ko ak yéeg bi si ñëpp laa def ni goro la ndax ñu ko laxatee jàpp na ni goro la ndeke ay millions la ci def waaye laxas ka lëm lëmal ba nga xam ne daanaka soo ko xoolee da ngay jàpp ni taxañu goro la si ñëpp laa daal di koy def suñu njëgalaay daal di lii de xanaa suñu jugee barkeelu si goro suñu xarit bi. gis nga wut bi nu ñuy defee mu mu ci ne daal di ubbi daal gis xiyaas yi ñu ngi ko ñu ngi ko lemee ci biir muy xaalis bu bari ay millions suñu la dal di ciy sari donc du noppee duy jàngalu sari bi oh la ilaha illallah du noppee duy jàngalu sari waaw oh! kooku mooy sëñ sari waaw muy jëmm ji yéeme yoo xam ni xam ngeen ni la soxal juróom-ñeent fukki tur la ak juróom-ñeent te tur yooyu moom la mu tasaare ci njaboot Sëriñ Tuubaa bi kenn ku ne am ci benn xaal bu mu yor waaye lépp dajale ci Sëriñ Tuubaa yi wax taale mooy lépp laa wax dajale ci Sëriñ mu nekk ku yéeme koo xam ni léppam dafa. dafa nekk symbole léppam dafa nekk symbole wax naa leen bu ñu fi jugee gis euh, ngeen thème gi ak demin wi thème gi ak demin wi koo xam ne jaamu yàlla guddi ajjuma ba guddi ajjuma gi jeex nga fajal ci nga yor sa kurus di wér jël boo na kurus am ci loxo bi solo boobu dem dem na. li muy dem du ko jàng ci loxo bi ah? muy ku yéene koo xam ne nag mbiram mbiram li ma bëgg ñoo xam ko mooy mbiram day soog a bëgg tàmbali. Mm-hmm. mbiru Serigne Saliou day soog a tàmbali. ndax man mii de dem naa Gabon ba ñëw ba ma ñëwee may nettali sëriñ bi Gabon ma ne ko Gabon de ay jeexi ci sëriñ bi bari na fa lool ma ne ko ndax fa sëriñ bi wàccoon ca wax ba tey mooy palais présidentiel la man waaw man sëriñ ko bi ma ne fa mu doon jullee tey juma jàkka ji dàq ci Libreville ñu koy wax mosquée centrale fa la nekk xam nga suuf pension pension ba ministère des finances bu Gabon moo ko nekk xam nga mara ak garab ga tey jënd nañ ko def ko jumaa di fa julli di fa nopp di fa jàng alxuraan sëriñ bi ñi ma sëriñ bi de fépp fu mu jaar def na fa lool su meññee ñëpp xam ni jaar na fa mu ne loolu nag mooy tàmbali noonu wala sax tàmbalee ko waaye man nag la ma ca déggee mooy moom sëriñ Saliou mbiram mooy tàmbali nii wala sax tàmbali ko ak ay dëkk. ak sëriñ Tuubaa. ñuy tegale ci loo xam ne dañ ko caractérisé woon sëriñ bi te fa ak lañ ko def waaye maanaam ko firi ndax man maa doon bind rek ci naan ci géej géej gi sëriñ bi waaye dañ koy jël kooku la te géej gi nga ko. Hmm. dañ koy jël kooku la maa batul kooku. waaw ñu caractériser que nii nga ni sëriñ bi c'est un être exceptionnel être exceptionnel mooy jëmm joo xam ni joo xam ko gis doo ko def un parcours koo xam ni doo ko gis seneen boo xool li ay dongo koo xam ni juróom ñaar fukki at ak juróom yi ci sëñ Tuubaa dem moom dem na ci taara yor ay génération génération bu tawee mu yor benn hmm. loolu ñaata million nit la ko mos a def ba adduna sosoo ba léegi kenn mosul def loolu kenn mosul ko def def un parcours exceptionnel une œuvre miraculeuse def loo xam ne lu miracle la kéemaan kéemaan waaw kéemaan l'incarnation parfaite des valeurs et vertus islamiques moom moo doon képp ki doon incarné valeur ak vertu islamique yi

le modèle accompli de l'humilité. Mais il y a le côté qui est ouvert de côté. Le maître d'œuvre des projets pharaoniques. Mon mot est un projet pharaonique. C'est comme. xajul ci bopp. projet pour tout bu toll noonu xajul ci bopp. waaw kon un projet pharaonique rek la fi def. hôpital bii xool leen bu ñu bindoo hôpital nag dama ko jëlee. ba bàcceel rek ka fa def. ñun ñii ñoo ko doon taxawu. waaye ñun xam nañ duñ ca dara lépp moom waaw ndax man mii la daan wax naan ma Talla yaa ma sa nekkal de waaw Talla yaa ma sa nekkal yow de Talla yow ci xelam rek noonu la de donc nga xam ni waaye man mii leer na ma ni loo fa doon yëg booba am na am na fu ma branché woon waaye du sama yëg-yëgu bopp une dimension inte intellectuelle insondable nekk koo xam ne xam-xam bi. kenn mënu ko sondé kenn xamul foofu foo koy foo koy mën a xayma ndax ñi fi gënoon a xeeñ ci ay domaines architecture euh, soo dem soo duggee ci domaine euh, mécanique bu dugg ci domaine astrologie nga dem ci yeneen domaine ñi fi gënoon a xeeñ ci Sénégal ku ci mos a toogoo jommal ku ci mos a toogoo Serigne Saliou Diop. barki Serigne Saliou waxuma ñi ñuy jàngante de.

mooy koo xam ne charisme am charisme bu sëñ Saliou soo ñëwee su la muñee rek charisme bi nekk ci moom amul fenn. muñ gi mu lay muñ. ay gi muy ay sa bopp. Ah! loolu loolu amul. Eh, loolu. Oh! loolu li ci nekk yëpp yëpp foofu rek nga koy yëgee doo koy yëgee. waaw ko wax. le présent des générations prévient le futur. génération yii tey. je am 30 ans 40 ans 50 ans jëm kaw. je sëñ Saalum lañ jëm Saalum barke sëñ Saalum ñu bëgg Saalum sëñ Saalum lañ jëm. barke une culture sans commune mesure. Euh, culture boo xam amul fu mu hmm. amul fu mu té ak na sëñ euh, na sëriñ bi yor ay journalu arab boobu day liir ay journalu arab kooku ni que waaw sëriñ bi kooku sama maam la moo ma ko nekk nii. ni ko waaw sëriñ bi journalu arab yi ngay jàng xanaa dafa am xeeti xam-xam yooyu gëstu ci arab yi sëriñ bi ni ko ah déedéet xanaa xam ci adduna bi lu muy gëstu ci kooku ni ko waaw sëriñ bi wax ni eh, doomi seen joy yi. suñ ko siiwoo ci raw sëñ sëñ Saliou ni teg comme yàgg daal di ko ni amul jenn doomu sëñ Tuubaa du xam lu ma xamul ni ko suñuy wax sax xanaa sëñ Momu Saa sëñ Fall mu yàlla boppam ni ko ñooñu nga xam ne suñ toogee ci suuf suñ taxawee ci suuf xam li ci ne lu mu leen tuddee mu ni ko ingénieur agronome sëñ bi ni ko suuf su ma taxaw sama borom xamal na ma la jël te lii may wax yàgg na de لما يحيى بنا التجارة تفهموا كده هونيمانيزم اسف صحيح لكن الكوخة غير ما يمكنني كملوا بخاف لكن كل يلا أفهم غير ما يمكنني غير ما يمكنني كملوا بخاف سواء كان ياري بعد صدقه سواء كان مام ياري بعد مصدقه ونوكس له مكين أما أم جناكم كدارة جي ترى بملكين bi ñëwee di kawar sëñ bi daal soppi ko si saa waaw koo xam ne yërmande ji ci na ci moom kenn xamul moom. le référentiel des initiés tey ñi xam yàlla ñëpp suñu taal bi mooy seen mooy seen royukaay yi moom moom moo moo la lu nuy natt ci wàllu yàlla ci suñu taal lañ koy natt ku xam yàlla jamono bii ñu ne ba fii ba adduna tukki kon kii mooy suñu taal yi yal na yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal زي ما ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته